invité baa ngi noonu toog kal Barou Ba. alors moom mooy suñu invité moo yegg si léegi nii ak le titre neex-neex ñu ngi lay nuyu. mooy le grand Kals maa ngi lay fay bu baax a baax a baax. Mhm. di nuyu grand Abba di nuyu Samira bu baax a baax a baax moom moom sama grande sœur la quoi. Mhm. parce que petite sœur la ci Mounas. Mhm. di yaayu actrice bi nekk ci clip bi. ci clip bi voilà ma kontaan trop ci invitation bi. alors ak ki nekk si clip bi moom Samira am na seen famille macha allah yal na yàlla <laughs> li mu woy ci clip bi neex neex kon. seen famille lay way ah mën naa nekk de. macha allah alors <laughs> Barou euh, pour ñëwaat un ci parcours bi euh, style baa ngi fii la voix la euh, kañ nga dugg ci sound bon musique nag mënuma wax euh, date exacte buñ ci dugg. Mhm. parce que lu ñu foowee la. Mhm. voilà mais bañ commencé dëggal affaire yi. Mhm. commencé feeñ ci kanamu gars yi. ci officiellement. voilà loolu moom yaakaar naa yàggul dara. ah ni ki daaw la rek. mooy bañ génnee suñu euh, single euh, bu bu bu bu bu njëkkoon. ci suñu carrière. muy lu des. yaakaar naa ñu bëri xam nañ ko lu des. parce que ñu ngi ko doon TikTok. wax dëgg yàlla neexoon na trop peut-être lu des gars yi xam nañ son bi mais jëmm ji lañ xam bu baax su ma ko waxee dinañ ko xam mooy euh, ma jox la suma temps nga jël lépp lu des ma jox la suma xel nga jël lépp lu des waaw <laughs> ah, boobu maa ko woy waaw boobu boobu lañ commencé ci single voilà Mm. voilà boobu macha allah mu am aussi plus de deux cent mille vues et quelques mm. sur YouTube mm. TikTok bi moom mënumaa wax ñaata la. bari na wax dëgg yàlla. aussi bii mu nekk suñu deuxième single. neex neex neex neex. ça parle de quoi. bon neex moom boole na lu bari. parce que àdduna. <laughs> Ah. <laughs> àdduna boo ci ah, mais mais àdduna boo ci naree génnee neex neex rek. desatul dara nañu waxante dëgg. qu'on se dise la vérité. lépp ci neex neex la yem. falaa mën a yem neex neex la ak ñu commencé la. am na yem mu génne woon li nga xamante ne mooy lu des je pense euh, mu nekk si. il tey nga indi li nga xamante ni mooy neex neex ça veut dire que yow da nga nekk ci registre wayu mbëggeel rek wala après mën nga mën nga sa dem ci beneen. bon xam nga actuellement Sénégal bu ñu xoolee. juste pour jaay sa image mën nga commencer di def ay wayu mbëggeel. Mhm. tu vois. mais yaakaar naa ñun suñu carrière ku ñu xam dëgg-dëgg wala ku ñu seetaan live dinga xam ne ñun dañuy woy ci ay thèmes yu bari voilà dañuy woy ci ay thèmes yu bari macha allah euh, yamuñu rek ci mbëggeel bi mm-hmm. mais mbëggeel bi tamit ak nu koy woyee. Mm-hmm. parce que euh, ñu bëri ñu ngi ñu ngi foog ne mbëggeel boo ko woyee rek dama laa bëgg nangam sànq. voilà voilà te jabar farangel mais mën nga woy mbëggeel fekk tem la. histoire la parce que boo dégg boo dégloo son bi nii neex-neex. Mm-hmm. commencement ba fin di nga xam ne lii. lu ñu escalier la en fait lu ñu commencé si suuf la yéeg ci kaw te dafay wax dara. effectivement voilà loolu la quoi. am na solo donc am na solo da ñuy wax rek clip bi euh, kan moo ko def wax ñu son bi kan moo ko def wax ñu bu dee am nga ay programme ak ay projet yoo xam ne mu ngi ñëw ñu waxtaane ko balaa ñuy jël beneen invité boo xam ne mu ngi ñuy xaar. ok clip bi moom maa ngi ko def ak euh, Pape Didier. Euh, ku nekk xam na ko macha allah. Mm-hmm. mu nekk réalisateur yi am femme yi am homme ak euh, yi ñu war a jox waaw euh, voilà voilà ku góor ki war a jóge fee ku jigéen ci juge fee. yëpp am ba boole leen. Ah. loolu moom Pag moom a ci doy <laughs> loolu Pag la. allez-y <laughs> ok Pag laa ko defandool. ak euh, wax dëgg yàlla yeneen gars yi jàpp ci bu baax muy côté staff bi actrice bi ngay gis famille am dañ ci jàpp bu baax waxuma la yaayam de mais famille bi dañ ci jàpp bu baax a baax a baax di ci profité waale di teg nuyoo bi ci euh, seen yaay mhm. di maman Oumouli voilà dëkk fële ca aéroport Yoff euh, wax dëgg yàlla aussi clip bi metti woon na trop parce ku gis clip bi ak ku xam ne liggéey naa ak PAK xam na ne yëf yi yombul. dëgg la dëgg comprendre nga voilà noonu la demee daal. mais projet yi. ok projet yi moom euh, actuellement ñu ngi ci ay single ñu ngi ci ay single ñu ngi studio ñu ngi ci ay single. Mhm. comme euh, yàlla def na ne amaguñu producteur. Mhm. Euh, ñu ngi ci ay single ba ci kanam. Mhm. bu yàlla defee ñoom am producteur nag incha allah ñu jéem xool leneen lu ñuy def. ak beneen projet bi nekk ci kanam nii mooy le 30 décembre incha allah. war naa jouer fële ca Villa Cristal Almadi ak sama orchestre te xam naa incha allah euh, narto yomb parce que maa ngi invité waa Sénégal yëpp le trente décembre la ba à la Villa Cristal incha allah euh, à partir de minuit di invité àdduna yëpp surtout waa Sénégal nag mais rawatina waa Yoff ak waa Trawo parce que man ñoom wax dëgg yàlla ñoo ma yar teete ma loolu aussi am na ci solo am na solo di profito di nuyu aussi euh, Abba Euh, Abdoulaye Diouf Sarr. comme mm-hmm. mooy suñu maire. Mm-hmm. moo ñu jiite. Mm-hmm. maa ngi koy nuyu bu baax. di jël nuyoo waa Yoff bi yëpp di ko teg ci loxo. monsieur le maire Abdoulaye Diouf Sarr di ko ñaanal li nga xamante ne moom la mëbët mooy maire de Dakar yàlla defal ko ko incha allah merci beaucoup merci merci beaucoup c'est gentil kontaan nañ ci yow jaajëf merci à bientôt jaajëf jaajëf merci beaucoup euh, booy bi micro bi comme moom Euh, day tardé rek dañ euh, ko jox micro bi mu nuyoon te spectateur mu andi neex neex moom tamit yaakaar woon naa yegg si de oto oto bee paanoon abaa dëgg la maa leen billaay tataa paanoon maa leen di nuyu ah di nuyu ñi nga xamante ne si tubaarikàlla ñoo ñuy seetaan ci télé bu mag bi TFM ñu ngi leen di kontaane bu baax a baax grand Kalsi maa ngi lay nuyu Samira maa ngi lay nuyu bu baax a baax a baax maa ngi nuyu euh, oto bee paanoon pour ngeen comprendre ma rek mm. oto bi xanaa dafa infidèle xanaa oto yu infidèle yooyu la ba mel ne xale yu góor yu infidèle yi nga xam ne moom la ah. yéene kaay bi bind waaw parce que xam nga euh, <laughs> euh, xam nga infidèle baaxul Aba mm-hmm. parce que li tax ma ne infidèle baaxul mm-hmm. waa ji dafa dugg ci benn kër doxaan fa mag bàyyanteeg mag ji doxaan fa rakk ji bàyyanteeg rakk ji doxaan tante ji bàyyanteeg tante ji doxaanteeg xaw ma ma sëñ lañ koy xaw ma sœur mhm. bàyyanteeg moom am keneen ku judd ci kër gi ba màgg waaj doxaan ko eh. ndekete kooku yëg na histoire bi mais kooku waaj doxaan na ko trois ans mais day day bañ mu doxaan ba ko ba ci yàgg bu gel bi taxaw ak moom ne ko euh, nga baal ma de mais yow mënumaa génn ak yow parce que damaa gis ne da ngaa infidèle parce que yow génn nga ak sama tante génn ak sama nangam génn ak sama nangam suñu waa kër génnoo ci mu ne ko du question que inf ñàkk infidèle de damaa fidèle ci seen waa kër rek. dëgg la de. daa fidèle ci seen waa kër rek waaw fidélité la. am na benn yéen a kaay boo xam ne bind na ci ñi bari gel. waaw euh, ñooñu ñan lañ. waaw ñi bari gel abaa mooy kalaasu euh, sama benn xarit da Fallou Diop rek. mooy ñooñu nga xam ne euh, ñoom tubaarikàlla pour ñoom lépp seen àdduna daal kuñ ñoom bant bu musóoru sax bañuñu ko abaa. ñoom boo musóoroo sax di romb ni ak noo mënti mel nag ñoom dañ laa bëgg jël parce que waa ji dafa am lu mat 4 gel Aba. nekk am quatre gel di waxtaan ak ñoom whatsapp kenn ku ci nekk commencé koo sonal bébé doo def profil doo ma def profil doo ma def profil. waa ji xamul nu muy def waa ji toog na trois mois di xalaat nan la war a def waa benn jour dafa jël quatre photo yëpp collage ko. dugal ko statut daa ciy bind ma sœur et ma Eh. ma sœur et. ma <laughs> kenn ku ci nekk mun nga jàpp ni yow la. <laughs> yaa moom sœur bi wala femme. ah waaw kenn ku ci nekk mun nga jàpp ni yow la. am na benn yenn kaay euh, boo xam dafa bind ci ñuy takk takk suuf. ñuy takk takk suuf Aba. waa ji euh, loolu nag euh, Aba dinaa ko wax fii bala ñoo yaakaar ni lu may kër yàlla wala dara. Mhm. mais du man jabar yéene kaay moo ko bind jox ma ko ba indi ko fii pour leeral leen ko. Mhm. waa ji dafa takk takk suuf. jabar ji yëg ko bàyyi ko ci biir looloo gën a bon. góor boo ko bëggee rey xamal li nga xam bàyyi ko ci biir waaj dafa takk takk suuf am trois mois jabar ji yéeg na ko bu yàgg moom bi mu takkee ba suba la ko jabar ji yëg mais 3 mois la ko jabar ji doo ko wax. benn jour la ñëw ci kër gi jabar ji defaral ko mu reer defaral ko mu naan jox ko ba mu defar ko ba dara des lu lu dul tëdd. jabar ji téye jaas bi ne ko yow dégg naa da ngaa takk takk suuf waajee tontu de naan ko dew moo ci xew bi de. <laughs> loolu de kenn laajoo ah ndax da ngaa takk takk suul lañ laaj. moom nee na demul ci xew loolu ba tey nanguwul ba xam daa daa. <laughs> xanaa takk ñaareel ñëpp ñëpp ñëpp mosuñoo taxaw avoué eh. eh, maa takk ñaareel noonu. lo maa takk ñaareel demal wër la gisagoo ku takk ñaareel ku taxaw ne damaa takk ñaareel. day daw man may nañ ma ñaareel rek ngay dégg. may nañ ma ñaareel de mais. xam nga benn affaire am na abaa est-ce que seetlu nga benn affaire ci jigéen ñi mm. jigéen da ngay jigéen ñu naan kii dafa gaaw a màgg mais imagine jigéen bu gàttee rek gàtt na bu bu gàttee gàtt na mënoo wax ba mu njool <laughs> seetlu li ma lay wax aba dañoo gaaw a billaahi te ñi gàtt ah. ak ñoo naqari deret tamit <laughs> astafirlah jigéen bu tuuti ak bu gàtt pour nga yab koo gën a gaaw loo ko wax mu ne kii commencé na maa yab waaw dañoo yeba ay waay waay yéen kii waay yéen tamit lii lan la waay yéen tamit lii lan la invité bi ay waay ay waay <laughs> eh, invité bi jugal eh, jugal eh, ay waay ay sama gàcce tey gif moom kaay kaay kaay eh kaay kaay kaay kaay kaay exil exil exil Pape Samba de barki yonent yàlla bu xam Pape Samba bon yow eh yow bawl dëkk fee ca Bawol. waaw fierté d'être Bawol mais Bawol. Euh, booy Bawol mën naa la wooy noonu. Bawol Bawol. yow plateau weekend start la invité. yow booy Bawol. ah euh, yow kaay waxal. santal ñi nga bëgg a sant ñi nga gërëm ñi nga a gërëm ba waaw maa ngi leen maa gërëm Abba di leen kontaane di leen wax nag tey damay jéggalu mm-hmm. ndax xam rek oto mën ta ñàkk waaw des waaw mën ta ñàkk ah kontaane bu baax a baax waa yëmbal di mm-hmm. nuyu ñaari meer ak benn paa muy maire Gueye ak maire Ndiaye ak Baye Ndiaye ñoom mm-hmm. maa ngi leen kontaane bu baax a baax a baax euh, di leen wax nag euh, nii rek lay demee saa su nekk di leen kontaane bu baax a baax Abba di la gërëmaat di la jaajëfal di la euh, joxaat suñu bopp bu baax a baax a baax a baax a baax ayca merci beaucoup kontaan naa bu baax a baax merci beaucoup merci beaucoup tey partir de 22h tey Abba Show donc ñëpp dinañ ko xaar.